quatorze milliards bu Mamour euh, Diallo chambre d'accusation bi nag daal dinay dëggal kon ordonnance bu doyen des juges d'instruction daal di bañ kon boobu lee recours euh, li ko wund nag euh, moo di leader bu Pastef les moom dafa déposé woon ab plainte ñeel lu bala la lu kan wi daal di constitué wu partie civile kon mënul agir ci coow lile ci ndaxte amul benn lorange bu jëm ci booram directement mu di kon préjudice direct ñu wëy ba tey ci xibaar yi daal di wax ci génn pa tey bu association bi ëmb jaaykat yeeg industriel réew Sénégal am na jafe-jafe yu bari yoo xamante ne ñu ngi koy dund lim nañu ko bokk na ci yéexaayu conteneur yi ak itam yokkutey euh, njëgu euh, fret bi nga xam ne ñoom bu ñu sukkandikoo ci euh, seen kàddu dafa daal di kon doublé ak itam leneen loo xamante ni li leen metti moo di pat pataar lu jëwrin bu ñu dénk wàllub commerce tax association boobule nag di sàkku ci ñu amal ab conseil interministériel jëm ci wàllub commerce bu ko defee ñu saafaral leen jafe a yokku coppite yoo xamante ne kenn du xam fu mu jógee ñu ond ci ak seen directeur exécutif mu di Omar Cissé. mooy conteneur yi nga xam ne day tardé tardé bu jiggi day conteneur boo xam ne léeg mu def ñaari weer wala sax ñett ci àll bi loolu amul sikk ci ne conséquences yi dana métti lool ci commerçant bi. yoo xam def audit sur la facturation portière. parce que ba léegi ni ñuy facturer nit ñi commerçant yi li ñuy ñàkk ci xaalis ci loo xam ne tegu ci yoon dafa bari. concurrence étrangère déloyale jàpp nañ ñun commerçant yi ne su fekkee mbir mi nii lay continuer ci kanam tuuti ñun danañ génn secteur bi bàyyeekook ñi nga xam ne dëkkuñu fi te loolu j'interpelle ñi nga xam ne ñooy association yi yor euh, consommateurs yi. côté conseil interministériel mënul ñàkk donc président. jëwriñ bi ñu dénk jënd ak njaay daal dinay àddu ci yokkute njëg euh, dund boobu la ci ab communiqué asom Aminata jata mu ngi daal di fàttali ni euh, kon euh, njëg yi dañoo taxawoon benn place atum 2012 ak 2019 amoon na stabilité te boobu la stabilité li ko fi jëlee moo di mbas mi jàngoroy coronavirus ak itam yéexaayu kon chargement yeeg déchargement conteneurs yi leneen loo xamante ne itam indi na ko moo di conteneurs yi léegi bareetul yu disponible jëwriñ bi ñu dénk wàllub commerce daal di dellu itam ci yi ñu jë yi département am jël bu ko defee li ni mel ñu daal di koy saafara ñu ond ci ak Fatou Lay Mbaye Diop doon xaar wàññeeku ci lu jëm ci njëgub denrée de première nécessité yi bu yeboon nañu xaddi ndax nag jëwriñ ji yor wàllu commerce moom mi li di expliquer lu tax nag ñu yokk li nga xam ne moo jëm ci denrée yooyu le ñuy wax ne lu ñu gis ci àdduna bi wanewul ab wàññite te prévision yi ñu gën a xalaat nag mën nga jëm ci weeru mars ci atum 2022 lu waral nag situation bi le ministre du commerce di wax ne nag mbas mi moo fi jaar te bokk na ci wàññeeku exportation yi nga xam ne moo ngay jóge ci yenn dëkk yi yi xay chargement yi ak déchargement conteneur yi wàññeeku yi tamit yu jugee ci conteneur yi tax nag entreprise yu bari daal di daanu tension politique ci Mali yi tamit tax na lu jëm ci wàllu ndawal gi fii ci Sénégal daal di yokk jafe yi nag tax nguurub Sénégal ne moom dina jël bépp matukaay rek ngir nag waaye jëfandikoo bi bañ ci gaañu mu doon taxe yu jëm ci wàllu valeur ajoutée bi nga xam ne jëlee nañ ko ci 18 pour cent indi ko ci 6 pour cent loolu tax njëgu farine bi kenn yokk ko rawatina mburu bi yeneen taxe si wàllu dawlin bi itamit ñu daal di koy xoolaat terewul ba léegi mën nañu wax ne du suba rek la ñuy lii di njëgu dund bu ñu leen déggee Abdoulaye Mbow dafay mel ni yokkutey njëkk bi moom amaguñu ci ñoom pexe. waaw amu amaguñ ci paxe defe naa ne te firndeel nañ ko amaguñ si pexe waaye li mën a am mooy di mën nañu gëm ne effectivement ni mbas bi am na loo xam ne def na ko eh, par rapport ak li nga xam ne moo di maîtrise des prix sur le marché mondial eh, maîtrise des prix à niveau interne par rapport ak spéculation bu ñu war a mën a constater sur marché te conséquence bi moo di inflation maanaam gonflement des prix mais xam nga itam dañu ne eh, jiit kay jiite toujours dafay am li nga xam ne la politique d'anticipation politique d'anticipation boobu noonu bu ñu ko amee def naa ne mooy tax lépp li nga xam ne spéculation boo xam ne dañ koy créer surtout à l'occasion d'approche de fête parce que xam nañu ne Sénégal fête bu ñëw ka doon Fat Abdou bu doon jëlee njaga njaayam euh, cent franc dinañ ko yokk cent cinquante wala deux cent donc non maîtrise euh, des prix sur le marché boobu noonu dafay àndi gàllankoor sur le consommateur te consommateur bi itam poche am maanaam gafagaam yokkul par rapport ak li nga xam ne moo di niveau d'élévation des prix sur le marché donc dañu war a teg ay garde-fou euh, li nga xam ne moo di contrôleur économique yi ñu gën leen yokk ba nga xam ne effectivement leur présence sur le marché dina mën a tax ñii nga xam ne il serait tenté d'augmenter benn prix te jaareelu yoon jaarul si commission bi nga xam ne dañu ne nii la ñu d'accord pour yokk prix wu ceeb bi wala prix wu euh, suukar si wala leneen mu am circuit boo xam ne fa lay jaar effectivement ba nga xam ne daañu ko bis nga boulangerie boobu léegi ñu ngi bëgg a yokk prix lu tax mënuñu yokk prix parce que itam dafa nekk benn vase clos boo xam ne effectivement jëwriñ ñi dañ ko dañ ko tënk ba pare maîtriser ko moo tax mënul am inflation boo xam ne da ngay yew parce que le les boulangeries dans le secteur sont très bien maîtrisées. te du askan moo ci sàkku ñu taxawal ñu def ab conseil ministériel bu ko defee ñu ut ay saafara ci jafe-jafe ñoom jàmbat yi da nga naan dafa bari c'est-à-dire nañu ko dippee sax front social parce que secteur yëpp tey nga gis ne ñoom ñooy jàmbat démb ñi ngi wax ci boulanger yi tey ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci commerce mais également industriel ñoom ñooy yëngu parce que mbas mi li mu indi ci jafe-jafe ci wàllu koom kenn xamul lu mu toll xam nga ñu nekkoon ci secteur informel moom moo leen ko ko c'est-à-dire que jafe-jafe la fret boobu ñu ko jàmbat ca fa nga xamante ne foofu lay jaar muy port ni muy yeggsee ak douane bi du benn du ñaar nga dégg commerçant yi ñu ñu jàmbat ko réew nag bu tollee fii ñuy wax euh, koom gi ni mu nërmeeloo te mbas mi indi ko ñu ne relance économique c'est-à-dire que askan wi dañu ko war a sentir mais également ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay commerçant industriel parce que dañu am solo parce que Sénégal boo dee sat bëri na ay bërëb yoo xamante ne amul zone industrielle Thiès bi ñu jege rek amatul zone industrielle bu fekkee am na ñu fi nekk ñoo xamante ne dañuy yëngu ci wàllu industrie di yëngu ci wàllu commerce euh, di góor góorgóorlu di am loo xamante ne ñu ngi koy jariñ seen réew kooku état moom moo leen di jàppale suqali leen bañ leen nërmeel parce que bu leen nërmelee moom mooy am jafe-jafe ndax ñooñu au moins am na ñoo xam ne ñi ngi bootu seen ginnaaw am na tey taux de boo xamante ne ñi ngi ciy xettali xam ne moom mooy nguur kon nguur moo war a indi pexe ci ne koy dund euh, te Mansour ni ñuy jooyee njëg yu yokk noonu la jaay yenn jaaykat wala yenn baykat yu nekk fii Sénégal di jooyee euh, yor seen ay produits gisuñu ku ñu ko jaay xam nga xat yi Seydou Cheikh Ahmed Tidiane si da wax naan dëkk boo xam ne amul loi amul fois ñu sell ñi fa nekk ñëpp daanaka dëkk ba day soppaliku si ñoom prison et c'est ça la réalité bu fekkee lii dugg si euh, ministre bi ni mu teg lépp ci ay tomb dafa sukkandiku ci ay loi moo xam loi des finances moo xam ba beneen loi tënku ci wàllu koom-koom prétexte conteneur yi manqué na euh, douane bi yokk wax na itam TVA bi nga xam ne def nañ ci ak wàññite yooyu yëpp ay annonce la yoo xamante ni xëy na dañu sukkandiku ci wàllu loi ba kenn mën leen cee jëm baaraam mais prétexte bi itam mooy fi jamono toll alors foofu bu ñu fa tollee li fa Fatou di wax sànq ci wàllu industrie donc nga mën a génne askan wi dëkk ci ci réew moomu ci guddi gi ñu nekk mais boo seetee même industrie yi nekk fii nii ak yeneen entreprise yi fi nekk teniruñu compte ci askan wi junñu na sànq Ablaye wax na mburu mi lu tax mënuñu ko yokk mais boulanger yi gis nga leen côté bu ne ñu ngi fay jàpp yokk mburu mi ba ni sax bisu tabaski duñu du ñu yokk nen sax dafa yokk usines yi defar nen ñu ngi fii Sénégal lépp lu ñuy defaree Sénégal ak néew fexe nañu ba nguur gi bàyyi na nit ñi ak consommateur yi ba nga xam dañ leen di xoj sur le les plans jamono jooju bu ñu fa yekkee nag état bi li ñuy indi yépp ci ay lay lay la mais cest à que mënuñu contrôler marché bi am nañu perte yi ci liy dugg si et mënuñu contrôler li fi nekk donc bu boobaa ay lay dong lay nekk tey mënuñu la wax lenn loo xam ne mënuñu ko contrôler ci marché bi ci kilo nangam bii lii lay jar di nga ko junjee sànq ci sa question bi